mais Siteu. patron. mais Siteu. jàpp si yow yàlla na yaa teg si nga dem si yoon jàmbu ñëw ñu faama dégg nga waa UST yëpp yokkal ñu 30 kilos. naaw ak ri taxaw taalal ko loxo yi. joxal naa ak mais góos. barke karim. jeunesse bi yëpp dinañ la bàyyi xel incha allah yàlla yaa teg si yoonu jàmm. bro. Aïda Gueye. fin bi yëpp génn nañ yoonu jàmm bro. mais Siteu. patron. mais Siteu. jàmm si yow yàlla yaa teg si yoonu jàmburoo. nga dem si yoon jàmm ñëw ñu faama dégg nga waa UST yëpp. yokkal ñu 30 kilos. naaw di taxaw taaral ko loxo yi. joxal naa ak mais góos. barke karim. jeunesse bi yëpp dinañ la bàyyi xel incha allah yàlla yaa teg si yoonu jàmm. bro. Aïda Gueye. fin bi yëpp génn nañ église sax génn nañ mais Siteu. Patron. mais eh, jàpp si yow yàlla yaa teg si yoonu jàmburoo nga dem si yoon jàmbu ñëw si jàmbu. amiin ñu nga ak waa UST yëpp yokkal ñu 30 kilos. naaw ak ri taxaw taalal ko loxo yi. joxal naa ak mais góos. barke alxuraani karim. jeunesse bi yëpp dinañ la bàyyi xel incha allah yàlla teg si yoonu jàmbu. bro. Aïda Gueye. fin bi yëpp génn nañ église sax